asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan di nu déglu tey ñu ngi fii ci péncam paaleen ci kër Serigne Mor Talla euh, nekk ci pénc mi nga xam ne fi la dikk fekk fi njaboot ak maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bin dikkee nag ñu ngi tàbbi ci kër sëriñ Abdou Assis Fall mi nga xam ne moo nekkoon xalifab Serigne Mor Talla ñu dikk nag kii nga xam ne kenn la ci njabootam di Serigne Cheikh Mor Fall tey jii mu def jàpp fukki fan yi ci koor gi mu yóbbu addiyaam yi nga xam ne daf koy jébbal sëriñam waajuram ak xalifaam ngir ñu def ko ci liggéeyam Seex Ibrahima Fall bi ñu dikk nag tey jii mu àndoon ak mbooloo mi ak taalibe yépp ñu ànd ak moom ci bis bi ànd ak moom ci lépp loo xamante ni daf koy def ci bis bi ak wëllëre yi ak xarit yi ñëpp ñëw ci bis bi ndax ku nekk xam ni nga xam ne joxe ndogu ak liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal Cheikh Ibra mu ànd ceeg wóllëre yi tey nag ñu dikk bëgg mu yëkkati kàddu yoo xamante ni koy jëmale ci mbokk yi waaye tamit sëriñ bi mu jëmale ko ci mboolem ñi ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra ak taxawaay bi nga xam la nuyoo siyaare la loo man ren rek bu déwénee suñu borom yokkal la ko eh, te nga ànd mi te suñu borom defal leen tawfeex kon ñu jox la kàddu gi bismillah waaw sëñ Saliou ñu ngi a ñëpp tey siyaare ñëpp ci tey baalu àq ñëpp nag di ñaan sama boroom defal ñu ci jàmm ak tawféex ak xéwal yu yaatoo yaato yaatu fas yéene doon taalib Cheikh Ibra Fall rek fas yéene doon liggéey liggéey liggéey konu kanub Cheikh Ibrahima Fall rek ndax dafa am mag mu baax moom wax ma ma yoonu moom du yoonu wax yoonu jëf la te Cheikh Ibra bi mu ñëw ci sëriñ bi am na ñu mu fa fekkoon waaye nag dafa jëf yoonu nag jëf jël lañ wax waaye waxuñu xool jël waxuñu dox jël kon boog ñu ngi ñaan ci sëñ Tuubaa ak mu boole ñu ñu bokk ci taalibe yi nga xam ne daal dañuy bokk ci ñi ñuy jëf rek waaw suñuy mën na noo xam yaa ngi tàmbali woon ndog yi kañ nga ko tàmbali woon ak bi nga koy tàmbali ak fi nga toll nag euh, ban tawféex moo la ci fekk si su ma juumul de waajur góor mi ngi noppalu 2009 2009 nag 2010 laa ko njëkk a commencé bi ma koy commencé tamit dama am gëm-gëm boo xam ne ndax dafa am kilifa goo xam ne dafa ma waxoon ne ma asamaan si moom buy taw amul kër sëñ Mor Fall amul fenn fépp lay taw buy taw nag da ngay am gëm-gëmu bu ñëpp yi taataan nga taataan waaye buy taw nga bàyyi mu taw ba sebet nga yor sa pot ku ne nga naan ko may ma ndox ko naan bu boobaa tooñoo kenn yaa tooñ sa bopp gëm-gëm bi ma am tamit damaa xam ne asamaan si moom bu ñëpp xool da xool na ñëpp waaye bul piis te yàlla moom li muy séddale boo gëmee mu jox la ko ma xam ne liggéeyub Serigne Touba ak liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall moom boo amee gëm-gëm bi ak Cheikh Fall la ciy fekk at mu jot tamit damay am gëm-gëmum ne ren de fas yéene damaa def nangam dem ba ca barabam ba ma sukk fa ñaan ko fa te ndimbal li ma ci am nag mooy heure bu ma ko ñaanee rek ma ma ci jàppale di ma ci dimbali bu baax a baax a baax kon nag ñun ñi nga xam ne ay tut tànk lañ ñu ñu koy tuddee wala ñu ñaan ay kilifa war nañu góor góorgóorlu bu baax a baax ci ndigal yi ndax kat li may wax rek nit ñi kat sukk nañ waaye tànk yi ñoo sukk waaye nag xel yi sukkut te doomu aadama yi dama naan bu ñu gën a gore ndax aw ñaq dafa neex lool koo xam ne day jël alalam di la ko jox di yëkkati ba pare di la di jooy kon la nga koy mën a delloo mooy nga nga nga liggéeyal ko suñ Tuubaa ak Seex Ibra bërkaat démb daa am génn góor goo xam ne dafa ma daane damaa am fu ma sëriñ bi yónni woon ma guddee ñëw tëdd moom ndekete ba mu jullee fajar la yee la jógee këram ñëw toog ci mbaar mi di ma xaar ma yeewu ay 9h ñëw fekk ko mu toog mun ma faal man de dama ne woon naa la fi dàkk su ma doon toog ba tisbaar tamit du ma fi jóg bi ma ñëwee tamit jàng naa fi nangami nooru dara ni jàng naa fi nangami jaalibatul muraaxib jàng naa fi nangami bukaan xaqan ñaanal la ko ma xool kii at yi mu am ak sell gi am ak li mu wax népp jàngal na ma ko te bi muy bi may ñëw di wàcc di ko sama kanam gi ba ma xoolee da xam ne dama doon nelaw kon luñ góor góorluwul ci liggéeyal sëñ ak Seex Ibra Faal rek doyul boobu nag laa ko tàmbali ba jamono ba jamono yàlla ji heure bu accès rek dama naan bu déwénee nangam laa fas yéene defaat te loolu nag heure bu ma ko defee rek sëñ baa ngi ma ci dimbali di ma ci jàppale bu baax a baax loolu lépp na ma tamit lu sante ko kenn kurut taalibe yi ndax taalibe yi sëñ Tuubaa ak Seex lu ñu man moo ñoo tax ñu man ko ndax man su ma toogoon fii dong dugg sama néeg bi liggéeyu ma defuma dara kon ak ginaar mënu ma koo jënd ak ginaar mënu ma koo jënd ab puso mënu koo jënd kon ña tax ngay jënd ginaar yi ña tax ngay jënd puso yi ña tax ngay jënd nag yi war nga leen di ñaanal sama borom defal leen jàmm defal leen tawféex sëñ bi jëf ñu ngi sant xanaa kàddu yu mujj rek euh, fii dañ fee indi woon sa waajur muy soxna Astu Mbàkke gaawaan doomi sëñ Abdu Laat sëñ Abdu Laat indi ko fii ngir mu liggéeyal fi Seex Ibra moom da daan togg ci ndog yi di ci def aw ñaqam tey boo ko fàttali ko ak lan nga yéenewaale ci ndog yi moom waaw laaj nga ma sax laaj bu am solo boo xam ne ci laa waroon a njëkki ndax bi may fàttaliku bi may jógee ci daara ji bind sama kaamil bay door a bi ma indee damaa ñëw ànd ak sëriñ bi mu jox ko sëñ Saliou bi may dem sëriñ bi dafa maa xamal ne ma boo demee bu la sëriñ Saliou ne toogal na nga toog soxna see moo ko wax ne ma sëñ bi da lay yóbbu ci sëñ Saliou suba nga yóbbu sab kaamil ndax sëñ bi moom li gën ci yow moo ko xam ma ne ci samam xel bu ma demee xam naa ne xel koom la ma yóbbu wala ci yeneen daara yi waaye su ma demee su ma su ne su ne ma su ne ma su ne dama lay yóbbu tamit dama naan ko waaw rek su ma noppee dem ànd ak sëriñ bi dem ba ma demee sëriñ bi ne ma bu subaa na nga fi dellusiwaat ma ne ko ah man de mbàkke bu ma xëysee damay ragal bu ma ñëwee du ma mën a dugg mu ne ma mboole naa la ak sëñ Modou Gaye boo ñëwee na nga agsi ci moom ma ñëw fekk bi may dem sëñ sëñ assistant maa waxoon ne ma la joxee xaalis na nga ko delloo xam nga dongab daara bu door a ci daara ji ak xaalis ni mu neexee ma ñëw nuyu ko jox mu ne ma toogal ne ba ci kanam ma toog mu yàgg mu woo ma ma ñëw mu yëkkati juróom benn junni jox ko ma téye ko téye ko mu mel ne sama loxo bi day day lakk sama xel dem ci baat bi ma sëñ bi waxoon sëñ bi ne ma bu la ko joxee delloo ko ko nee ko ñaanal ma ma am di ko joxe ma naa ne ko ah, man tax nëbbu ma wax ji ma ne ko ah, man sama waajur da maa waxoon ne ma su ma ñëwee ma jox naa ko jox nga dema ñaanal ma di ko am mu ne ma kon doo ko ñàkk mukk moom Serigne Saliou ma ko ñaareel ba tamit sama waajur wu jigéen moo njëkk a jël ñetti ginaar akum akum xar ne ma ndog yi kët sa mbokk yii ko fi indi waruñu laa gën a gore demal jox ko sa baay nee ko maa ko def ci ndog yi bi ma demee jox ko sëriñ bi sëriñ bi damaa xamal ne ma lii de xala indoo xanaa sa soxna soxna see la ko jox soxna see la ko jox nga jox ma ko ma daan ko déedéet mu ne la ko jox lii du sa xalaatu ñaareel ba tamit soxna si damaa mas wax ci làmmiñam ne ma man ak soxna njaxat mbàkke ak soxna muumi mbàkke li sëñ Abdou Lahad boole benn oto boole ñoo ak soxna muumi sëriñ Tuubaa kii mun na ko wàcceel ma ko kër kii kii mun na ko wàcceel ma ko kër kii kii mun na ko wàcceel ma ko kër kii biñ demee bay génn sëriñ bi jàpp ne niñ magante ak ñoom niñ magante fekk sëñ mu ñëw dëpp laajaat ko sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad ne ko diw mii yóbbul ma ko kër diw diw mii yóbbul ma ko kër diw xam naa niñ magante xam na waaye toppantewuma ko ci noonu ku ci ne fa ma lay yóbbu xam naa la tax ma di la fa yóbbu wax na ma ci làmmiñam tamit dama ma Mor mu ne waaw mu ne ma ñaanuma yàlla di fekk sama sama waajur wa Cheikh Abdou Lahad Mbacké te awma sa ngërëmal bàyyi soxlawuma tukki soxlawuma dara passeport mi am yëpp mi ngi ci sama armoire bi da koo téye ba mu jeex wax na ma tamit mosumaa dem fenn di la fa ñaan di ñaanal sama bopp lépp lu may ñaanal sa jëmm ji dong moo tax ma di ko fa ñaan sëriñ si dim sëñ Abdou Lahad tamit wax na ma bu yàggul rek ne ma sëriñ ab sëñ sëñ Abdou Lahad la muy def juumu ci yéen ñii mu jëloon yóbbu leen ci Baye Fall yi de ba mu leen fa yóbbu ngeen wane aw yoon moo taxoon mu yóbbu leen ci loolu kon ñun li ñu war a def mooy wàcce suñu bopp jéem a góor góorlu sax ci taalibe sax ci liggéeyal Serigne Touba te xam ne liggéeyal Serigne Touba moom ku ci sax doo ko rëcc mukk wasalaamaaleykum wa jërëjëf kon mbokk yi yaakaar naa ne tey dégg ngeen kàddu yi nga xam ne kàddu yu positif la waaye jëf ji nga xam ne moom la jëfi tamit mu gën a tee doon yaakaar naa gis li nga xam ne moom la joxe ci ci yëbbale ko def ko ci liggéey bi te lim ci def lépp daf koy fàtte at mu nekk day fàtte ne defoon na dara di ko waajalaat kon jërë ngeen jëf ñu sant ko bu baax moom mi ñaanal ko yàlla guddal fanam te wéral ko te lii mu teg ci loxol Sëriñ Tuubaa teg ko ci loxol Cheikh Ibra yàlla nañ ko nangu te ñëpp sunu borom faj seen aajo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu waajal màggaluk Cheikh Abdou Lahad ki nga xam ne mooy léppam te fii la waajuram ñëwoon di ko liggéeyal di fi liggéey Cheikh Abdou Lahad joxoon ko kon bis ni tey ñëpp nañu jàpp waajal màggal gi waajal bis yëpp yi nga xam ne da ciy taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu مرتجى منة لنا جريء